Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Oustaz Alhaji Thiam ñu gën koo xam ci Moustapha Gueye 2 al alimul allama abonné leen ngeen jotin mboolemi xibaar xam sa diine rek moo ko tax jóg ak xew-xewu jamono kon mbokk ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bës cloche bi yokk ñu tuuti sens nga bës fii bu fekkee gande ci chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonner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 Cheikh Moustapha ak seeni rakk yoon ñëpp Pape Thiam Omar Thiam Kumba Maam faatu Astou Thiam yéen ñëpp ñu leen di siyaare ramu Thiam di leen nuyu di leen siyaare di ñaan yàlla bés bi yàlla nañu ko mu ñu fekkee ko déwén waaye tam ñu ngi nuyu suñu mbokk ñoomin kii nga xam ne ñoo ñu fondement nga yoon wu baax wii ñu ngi nuyu itam xalifa général bu mag muy Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim yàlla fi yàgg te wér di nuyu imaamul hadra muy Cheikh Ahmad Tidiane Alioune Cissé yàlla nañ fi yàgg te wér te waxtu wuñ geesoo gis ñu ñu leen di siyaare di gërëm mbooloom fi teew yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla nañ ko teewee déwén waaye ñu ngi fi profité itam di jaale suñu mag jim sàll ndax bu fi fekkoon kenn di ko jiitu ci jotaay bi ndax kenn la woon ci kër gi mook seex moom Mohamad Jim Diop ñoom ñëpp kenn la woon ci kër gi yàlla jëlee na leen fi delloo leen ci boppam yàlla leen gën a baax yal na yàlla baaxe leen ci barke Cheikh Ahmad Tidiane ñi ngi sant yàlla nag ci may gim ñu may jëmm jooju muy Cheikh Babacar Thiam radiyallahu anhu ci ngoon waa ji nga xam ne moo amee micro bi ñu takk ci mbubbi gaa yi doon na ma laaj ci moom laaj ma suma digganteeg moom moo wax ci la heure ba toll mu laaj ma siyaare bi lan mooy histoire siyaare bi ma ne ko siyaare bi suñ mbokki ñoomin kii yi ba bawut yi ñoom ñoo gàmmoon mawlit ba gàmm gi jeex diggante gàmmu ak gàmm gu mag ñu ñëw siyaare si Baay Babacar siyaare boobu moo soqeeku muy dox ba léegi mm-hmm. ma waxoon ko nag ne ko nag boobaak léegi su matut fanweeri at ma jege na ko wala boog ëpp na 86 ba léegi foog naa ne ëpp na fanweeri at ma ne su ne du kon fay na bu yàgg ñi ko ñi koy def si yàllaa taxoon ñu koy def ki koy def it yàllaa tax mu nangu siyaare boobu kon lépp yàlla la kon moo mu sax loolu lay waxaat fii yàllaa tax mu jóg yalla ko yalla saxal mu jëm jo xamne nak nag dafa daan jël leppam joxe ko te yalla tax desewut dara nga ngi ko ben bes ci Carrefour bi nga xam ne mooy eh, yoonu Foundiougne wi ci garab googu mu tok fa ci pono ba fa nekkon ak ñom Baye ko Gayin radiyallahu anhu ñi tok ak man ak sa ngor ñu toog ba mu yàgg am ku dikk na ko góor gi kër ga de dara néew fa man ne amaguma la ma joxe dépasse mu dugal loxoom ca poosam nag ah fii dara néew gu fi de xanaa ko ma seet ba xam mu reer karang karange fekk juróomi téeméeri yam war na joxe dépasse mu yëkkati ko jox ko ko booba yaa kinne ci am ngi toog te moo ko waroon dem marché ci baa ngi taaje kinne ne ko ah ni ñu def nag mu ne ko nañ xaarandiku yàlla yàlla yaatu na te bëri na ñu toog tuuti am oto bu jugee ko côté Foundiougne ñëw ba tolloog moom ci ñoomin kayit la de mu làkk ko séeréer wàcce boxom boxom aw kayit jox ko bay baaka tàllal loxom ne ko kenn lii ak la ma joxoon lu ci ëpp mu ne ka ah, lii de moo ëpp mu ne ko mu nga kon yàlla soo ko bëggee ci moom dara fa ngay joxe la nga am wuccee sa bopp yàlla yàlla joxoon li nga bëgg loola boo ma ñu ngi woon toogoon ci peggam kon kooku léppam yàlla la ko joxoon lépp mit yàlla la ko joxoon bés ànd nañ gàmmu ji dëkk ba dëkk ba ñu wax sikka turum sikka turum ca boori Ndofaan tey rek la gàmmoo fayoo ko am waaye gàmmoo fayoo ko mustaam gàmmoo fayoo ko mustaam tey la am waaye mustaam Modou Mbacke moo ñu yóbbu ci mbaaram boobu nga xam ne Moussa siin moo ko moomoon ñi dem gàmmu gi sikka ba gàmmu ko tase ñu jox góor gi junne juróomi téeméer te mi nga war a fay Modou Mbacke ñeenti junne kon lum cay teg xam nga lam ca teg pour mu mat day dana mat ñaari junne juróomi téeméer mu yëkkati ko ci poosam mottale ko keroog dañoo dëkk fii toog ba yoor yoor bi tàng mu jóg ne ah xaaral ma dem liggéeyante ci dépasse gàmmo ba ba set nga ñëw ne ma liggéeyante ci dépasse ak ma ne yàlla tax nga gàmmoo ji bu yàlla taxutoon bu ñëwee junne yaa ngi ci poos bi mm-hmm. kon nag kooku ku mi war nga am royuwaay te it am nga royuwaay waaye taalibe baay ba taalibe baay laa Babacar Thiam mooy suma buntu ci baay ngay def loo xam ne Babacar Thiam musu ko xelaat ci kaw suuf su booba yaa tilima sa bopp waaye moom tilimut ku tilimut nag boo àndeek moom soo ko bëggee tilimal yaay tilim waxoon naa ci néeg bi ne laylatul katmiya bi ngeen di dégg ci senegal ak Gambie moom moo ko njëkk a def laylatul katmiya moo ko njëkk def ca kër Muntaxa Fay Banjul bañ ko defee yàqkat yi naka jekki musuñ fee jóg ñi kalaame ko papa as ne ko Babacar sos na loo xam ne amu fi woon ndax moo fi taxawal na fa kat mi yetu ca Banjul bañ ñibsee mu oote yónnee ne nañ dem uy ji ko bay Babacar dem ànd ak Omar Thiam ak man mile ak Abi Mbay bañ demee ñi toog waxtaan ak moom nuyuwante moom mu ne ko ah Babacar dégg naa wax nañ ma a yow dangay ngay di fecc te loolu bàyyi daaw ko def lu tax nga def ko mu ne ko ah man de wax dëgg yàlla am dama lay laaj yow sama sëriñ waaye ma lay laaj ndax bañ dalee sikkar ci pie baay bii ba léegi mos nga maa gis may fecc ci télé yi ak fi sikkar di fecc ci géew yi mu ne ko déedéet mu ne ko loola ma nga loola nga daan gis ci man nag ba léegi mooy dox soppiwuma dara wàññiwuma ci dara mu ne ko yow dañ ma dañaa wax ne da ngaa sos lu bees ndax da nga def lu ñuy wax kat mi te musu fee am loolu nu mu amee nu mu demee mu ne ko dama xelaat na ma xool na gis ne juddu baay ca tay ba ñeseen mooy màggal tay guddi tay ba bàyyi defut ko woon gannaaw bu bàyyi demee nag ay xat lañ door a xelaat ne màggal juddu bàyyi war na ci ñun taalibe yi ñi daal koy daje jiital la ca nga taxawee ko ñu topp ci sa gannaaw dundal ko gannaaw bàyyi nag moo ñu jàngal Seexu Tijaan ma gis ne kon guddik Seexu Tijaan màggal ko war na ngin màggal guddik bàyyi ni mu waree moo tax bañ ma ko santee ma d'accord ci xam ne dara nekku ci baas na ko wax nga dëgg. xam naa ne dara néew ci waaye yàqkat yi dañu dëkk ci man di ma jaxaseeg yow xam naa nag ay yàq la waaye dama lay oo rek pour gën a waxtaane yow pour gën laa dénku nga gën a bàyyi xel la sa sëriñ nekk muy baamar fàtte jàllo te bàyyi yar ko ca su ko defee ma gën laa fàttali bu ca jóg mukk xam naa doo ca jóg nag waaye ko ànd ak bi waxtu nekk war nga di ko yedd di wax ak moom li ko jëriñ ëllëg ak li ko jëriñ tey booy gàmmu itam da ngay wéy wéy tiwaawan mu ne ko loolu li tax ma def ko mooy damaa xam ne suñu sëriñ mooy Cheikh Ibrahima dafa boole ñëpp képp ko boole ñëpp nag booy wax ci buntam fa ngay boole ñëpp kon jëmm jooju ñu ngi koy gërëm waxoon naa ci nee ba ne dund na ba génna àddina ci saayir musta def luñ sikki ci pay bi mbaa luñ mbaa luñ mbaa mu wax luñ sikki ci pay bi musta def luñ sikki ci pay bi mbaa mu wax luñ sikki ci pay bi kon ku ànd ak ku mel noonu am nga roy waay waxtu woo gisee Babacar Thiam ci télévision tudd yàlla tagg yonent bi tagg Seexu Tijaan tagg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass càppaacoo léegi kon ku am ku noonu am nga roy waay mhm. siyaare nag kenn du wax ne kaay siyaare si ma moom waxut ne siyaare si leen ma de ñun ñoo gis ne siyaare ko war na ñu ànd ak suñu mbokki bawu di ak suñu mbokki il bi ñëw siyaare ko ci bunta Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla fayal Baye Babacar liggéeyu yàlla may kum ko mayoon yaa ngi jéem a naaw ci jaww ji yaa ngi jéem a naaw naawlu ci jaww ji tudd yàlla ñëppuy kontaan mhm. yëgatuñu seen am ak bop gi lu am ak yalla gi tay tudd yalla gi bari na lol waaye fam fa fam fa àggoon moom àggaguñu fa de xëy bay yi bari na ak xabool yi ko la ne ko bàyyi mu ne am na ko dama bu nga may ma sekkere bat bu ñu naan ngir bat yi bax bay babakar ne ma a ah, nañ golu te ñaan yalla rek mané mu ne ma man mi suma baat bi li ma ci am duur lu may naan duur lu may wirda duur lu may def dara lu ma yàlla jox la ca yàllaam nga nit nag danay sàkku xam waaye nit danay ñàkk sàkku yàlla jox ko ko man nag lii sàkkuwuma ko yàllaa ma ko jox boobu man xaw ma sax fu ma ne hmm. waaye nag góorgóorlul te am itte ndax itte mooy jël mooy yóbbu ku nekk fu ne hmm. itte mooy jox nit ku nekk lam bëgg booba wax na ma benn secret ne ma lii nag baba Njaay la ko gisee moma ko joxon xana ma jox len ko ya Ousmane Sarr ak diw ak diw su ko defee kon koku jëm la won jo xam ne añaanu toon ci tuddu yalla kep ko dend ak mom di tudd yàlla añaanihul la li nga am ndax xamna maqamam ci yalla gis nga ko gis muy contre maqamam jambour mom maqamam maqamuko boo xamoon sama maqaama doo contre maqaamam kenn moom nag xamoon na lem am ci yàlla ba kenn nekk la nga am ci yàlla bàyyee na la ko xëcciwut ak yow dara ñun ñooy xëccoo waaye moom xëccoowut am na bés nag waxoon na ma ne ma bul xëccoo micro bul xëccoo tànt bul xëccoo mbooloo mu ne ma xam nga li gën mu ne ko bàyyi lu gën mu ne fa ngay toog ba mbooloo xëccoo la tànt yi xëccoo la waaye bu la mbooloo soo xëccoo mbooloo ta mbooloo xëccoowut la gàccee gu bëri nga fay jëlee rek kon jëmu jëw ñi ngi ñaan yalla yok leral amen tax ñu ci barkeem mos naa ko laaj nak ne ko fekk booba dañ doon gamu ji banjul police yi ñaké ko teggen am dalay ñaké teggen gu metti gor ga nga mer mer mer mer ba way waxu dara ñi ko police yi wañu ñu délo ñu kaaraan ñu yendu kat biran lo bengon Omar cham dem na ñu parce que ñoom Banjul booba dañoo waxoon ne ku amut bët rek waroo dugg Banjul ñoom loolu lañ daan wax suñ luwaa bi àllahut balaa yéen dugg balaa yéen dugg biir Gàmbi loolu la ñu doon aaye booba dañu daan aaye ne dañuy toog ci Johnson yi di yelwaan rek kon duñ fa dem ba ñu dem gàmmo tali nag ñu gis oto bi yëpp ay silmaxa lañ ba mu des Omar Thiam ak Baye Mbaw ñu ne gannaaw ñii duñu silmaxa ñoom mën lañoo jàlla waaye yéen da ngeen di wàññeeku ñu wàññee ko ak oto bi dem kët biraan loo indo fa bàyyi Omar Thiam jàll féeri dem ca Ablaye Jaase mooy doomi maam nee na Jaase mi ngeen xamoon mu dem moom lañ doon gàmmool mu dem expliquer ko affaire bi Ablaye Jaase dem ca immigration nga xam ne fa la moo ilif mbooleem police Gàmbi yëpp daal di waxtaan ñoom wax leen ni affaire bi tëddee ñi bind ko kayit jox ko ne ko demal jëli leen fu ñu mën a nekk demal jox police bi kayit gile ne ko nee nañ nga bàyyi ñii la ñuy dem gàmmu ji gàmbi mm-hmm. Abdoulaye Diassé ñëw jàll féeri quatre heures ñëw fekk ñi ñu ngi naan ataay kat biraan loo bétoon la ci troisième mu ñëwoon ne direct ak oto bi ne ñu jóg leen ñi dem ñu jóg dugg ci oto bi dem bañ àggee ba ca fañ woon police bi ñëwaat ne waaw di yéen lañ waññeewoon léegi ci suba ngeen dëppaat waññeeku leen ñibi dangeen ngeen dëgëra boppa xanaa amu leen <laughs> Abdoulaye Niasse wàcc daal di génn kayit gi tàllal ko seen seef wan ko ko mu jàng ko gis tam signataires yi seen kilifa gi mu daal di jël kayit gi delloo ko ne ko waxoon lii mu mënul leen ko wax ci suba su ngeen ko ci waxoon ci suba kay ñu bàyyi leen ngeen dem Baye Babacar ne ko déet waxoon nañ leen ko kay xanaa da ngeen gëmul suñu wax ngi dem ci keneen ëpp doole ngeen gëm kooka waaye waxoon nañ leen ko waxoon nañ leen ko kat da ñu gëmul rek. ñu daal di ñëw nag commencé rappel ñun amaaye ñun silmaxa yi ku nekk ñu laaj la sa tur pour bind ko noo tudd diw nga bind noo tudd diw nga bind ñu ñëw ba ci man ne ma noo tudd góor gi ma ne ko xaalara ba foofa na ba foofa na laa tudd waa ji ne ma waaw nit nag nit nu muy tuddee àllara ba foofa na ma ne ko waaw man bañ may ngénte fekke woo ko mu ma déedéet ma ne kon jàppal li ma laa wax rek nga bind àllara ba foofa na laa tudd ñi dem ba ca féeri bi ma ne ko bàyyi mu ne ah, ma ne ko yow de deug deug li nga def day daf laa neex rek ndax yeen am ngeen ismu ismu yo xamne ne ku len togn ngeen faagaagal ko kii indale ci alibi bi ba legi nga setan ko ci bopam munema dom ma doom ah, du non de su fekkon loo man def kon dara du bax su fekkon ne loo xam wax kon dara du bax ci lama ma won am na ben way ben talibé bu newon ci serignam mu laaj ismu laay moy isim bu mag bobu gañu xam mu ne ko danaa la ko jox way nak mu nat ko mu jël ben super japp am pitch dugal ko ci super bi xub ko ne ko ko yobul mako diw ci dekk sangam masala xëy mu jox ko mu jox ko euh, mustafa cham ne enul super bi, nga yobul mako Cheikh cham ma ca Dakar ne ko man mako jox ah Mustafa enu super bi rek di dox ak di dox ak moom ba sori ne ah lii moom doy na waa de xenoo super pasi jëm dakaar ba tollu fii te xaw ma la ne ci super bi loolu doy na waar de ba mu ne kul be super ba rek picc mi ne fër naaw na mu yële yële nga xottu super bi ñëw ci sëriñ bi ne ah, sëriñ bi man de maa ne woon naa kumpale ci bi ndega am picc nga ci ba mu ubbee super ba rek picc ma ne fër naaw sëriñ ba ne ko ku munta garde picc ci ab super doo mën a garder ismulaay laasam ci dënn kon du ma la ko jox ñàkk nga baa bi loolu la ma mu ne ma ismulaay laasam fekkoon ne ku ko am lu la neex jëf ci lu la neex wax ci lu la neex def ci ma ne ko am ah, mu ne ma kon dara du baax lépp ay yàqu yàlla ñu yàlla ñu gën a xam liñ nekkee te mu ñu ko bàyyee kon kooku def ñu loolu nañ ko bàyyee yàlla rek yàlla dana ko jëflante moom gàmmu gi la ñi nelaw gam dimanche altine ñi xeye fa jall foos féeri fas yéene ñib si passé ba ñewé ba ci andalay ci police bi ñi wàññeewoon ñi wacce taxaw police yop reug reug yi dik talal bay loxo ne ko ñaanal ñu tanga ba ñu gis nga dem barki dem bañ la wagne chef bi la moy dem ba sañan mu nga nelee ma ngay pak ay bagage am nañ ko mu ngay ñibi ñaanal ñu yalla bi ne ma nakam dako ma ko waaye yàlla dàq na ko dàqu ma ko waaye na kon koku suko ko def lamay def lamay def lamay def am am lam beugono waye waaye na borom def ga defam ba borom def ga def lam meuna def te moom feeñut ci de kon nak ku yalla may serigne bu mel nonu war ngaa mën gor góorgóorlu bu baax te xam ande ak mom dem nañ muy gamugo ñeuk dafa xewoon ñu bari xam nañ ko ñu mu yaa ngi toog gàmmo ga amoon na te ñoom préparé nañ pour yàq gàmmo ga waaye moom def na la muy def ci ay baatinam ba gàmmo ga am bañ demee ba ca tànt ba ca kër ga sëriñ bi nga xam ni mooy président daayira bi biit daane ko biit bu metti daane ko muy wéqu rek parepare pour dee góor gi amoon na buutal boo xam ne mi ngi ko defoon mu ngi ko daan def ci saak bi ñu bari xam nañ ko ci gaay gutam bobu fum ko dugale ci saag bi rek buy dem yóbbaale ko jami yalla ya tax mu ko ba waji ji di yuxu di wéqu ak bit muy metti president bo ñu bari xam nañ ko maado Baro Tamsir xam nako gor gi xelle kaas jox ko mu naan ne forom ciok ne cioket ba bit ba dali nek rek dali nakak mu ne demal topoto ci gamu gi ñi gamu gaa ngi bañ na duñ gamu way danañ gamu gaa ñi daal di xiireem asamaan si xam ngeen séeréer classe tamsir gi xam nañ loolu ñi daal di njabar asaman si mu xiin ci saasi gaa ñi dëkk ne ko sëriñ bi asamaan si xiin na de mu ne leen waaw xiin na ko dara mënu koo teree taw dana taw waaye ñu ah. dana taw waaye danañ gàmmo taw ba matut minute musabeti taw bu ko gën amut ndox mi yëpp wala ngaan jëm ca géej ñu toog ba ñu dem tànt ba Gorgi gi di gam di gam di gam ba huit heures mu ne leen lu ngeen xamut xamna hit li ngeen xam ba pare xam ci bit li ngeen xam lu ngeen xamut xamna li ngeen xam ba pare xam ci bir li ngeen xam lu ngeen xamut kon faylu bi foog mu tàlli ngajoor ken ko fay tere tàlli tay jii ku dem ngajoor xale ngajoor yëpp ay bay lañ kon koku ab def defam la fi ci fas itam daayira bii nga xam ne jim sàll moo ko jiite radiyallahu anhu aay nañ fii ci daayira ci kër gi booba kaas yaa gaa ngi woon ci diggante bi fii ñi toog di sikar guddi benn sandarma boo xam ne ma nga dëkk ca ngiij booba lañ ko fa affecté bees Ousseynou gaaj mu dégg sikar si dégg sikar si topp ko xamutoon ne fii lay baay bàyyi Babacar dëkk mu dégg sikar si topp ko ak tenue bi ak dàll yi ba agsi ci sikar ba muy dugg ci buntu kër gi rek jàkkaarloog Baay Babacar Thiam njoolaayam bi ngeen xam eh, mu daal di suqum mbaxana ma rek commencé raam raama raam ba ci Baay Babacar Thiam mu ne ñëpp loxoom ba ne ko man la Ousseynou Gaaj ca ngiit góor gi fëgg dënn bi ne ko waaw kañ nga fi ñëw mu ne ko fii lañ ma affecté Foundiougne nañu ma affecté ma dégg sikar si ay ay fi gardé tey dégg sikar ma topp ko comme mu ne yow fii nga dëkk mu ne yaanteeg moom. joxante moom la ko falaa waxee woon ne képp koy uut kër pasi na nga ñëw ci xarfu bi lépp lu baax ci pasi ci xarfu bi la jëm loolu xam ngeen ko yéen ñëwaat yéen ñi dëkkee pasi xam ngeen ci dara forage baa ngi fii ci pasi xam ngeen ci xarfu bi la nekk terrain football baa ngi ci fii mooy stade mooy stade bi ñaari station ngi fi terrain basket baa ngi fi CM baa ngi fi enterré orange yaa ngi fi te it dégg ñu ne marché ba ngi ñëw xawma dik na xawma ma dikkagul bo ha ah, ñu ne pour mburu yaa fi orange mo ne baa fi way kon lam waxon dañu gañi te ñu ne ndox mu neex bi bor bob lay génne kon xam ngeen ne ko la mu waxoon dañut am na bés ñu dem gamu ñu pass mbitéen bañ démé pass mbitéen bo bay bité radiyallahu anhu mu ngi dundu ñi sikar di sikar ba sikar si tàng bay bi tey ñëw nangu micro ba ci loxo bay Babacar ne ko Babacar mu ne ko ñes mu ne ko ñaanal yàlla yàlla may ñu ak courant sonn nañ ci xëcc ci goj sonn nañ ci taal sondeel sonn nañ ci taal pétrole bay Babacar ne ko ci barke ba xaal bii ma toll xaw ma dana mu fekk xaw ma du fekk waaye courant ak ndox moom dana ñëw pasimitiin foog naa dikk na pasimitiin de xam ngeen ci dara kon kooko waxam dara mënu koo dindi ñëw naa ci mom ne ko bàyyi mu ne ah ne ko man de yaa ma jàngaloon ne Seexu tidiane bëgg tuux cigarette ta mëna fa di tuux uh-huh. mu ne ma du la jox du jox dara togal rek dana ko jëlé ci yow ndax mom bëggut ko ñetti fal na fi am ak mom suma cigarette xëñatee sama sama sigaret bi métti waaw koo ne bu la cigarette xëñee sa bi do do tuux way kon koko defar kat la. suñ yalwaan miñ def dañu ebaloon ñu yalwaan ñi kebbe kuude bañ demee kebbe kebbe kuude gii ñu yalwaane fa man ak Ousmane Sarr ak Abi Mbay ñi dem yalwaane kebbe kuude bay ñib si ci guddi gi ñu eno suñ ëmbi dugub yi dox xam nga silmaxa buy dox guddi yow kenn kenn amul xeet nag ñi ngi salam salami rek nag di kuluñ kuluñ rek waaw ñiy dox berombu kët bëkkëri diggante kër bëkkëri ak pasi ñi xam ak ñiy liggéey ci baatin xam nañ ci dara diggante boobu dafa xaw a sant yaay ñi dox ba mu yàgg ci fi kaas yaay yu bëri yooyu nekkoon ñi daje daje fa benn welo boo xam ne welo welo pédale laa wax de mi ngi xeeb ay ciw ji ganaar mi ngi war di ciw yaa naa ci ci ci ci ci ci ci ci ci Ousmane Sarr ne ma abi woñ ma ne ko naa mu ne ma semaine nga yàlla kii ma ne ko waaw mu ne ma nañ dem abim bay ne mo nañ dem Ousmane ne mo nañ dem ma nag leen acci ñi dem ñi dem mu ñi wër rek ñi dem mu ñi wër rek ñi dem ba rombu fi ba rombu forage bi mu ne yoreñ gisatuñ ko ñi ñew bañ ñewé fekk nañ gor gaangi taxaw ci buntu kër gi bañ la alaykum rek mu tatafuñu na ngeen def ak nu ngeen def ak la ngeen dajet nu ngeen def ak la ngeen mu indi suñ ëmb yi keroog moo ñu yónni ci la ñuy joxoon benn affaire nañu xaw ma ne Ousmane fàtte na xaw ma fàttewu ko soo ko fàttee nag boo mu joxul ñaari junni doo ko xam ci la ñuy joxoon benn affaire nañu su ngeen awetee àll bu guddi leen nangam ak ndangam def ko nii ak nii rek da ngeen mucc ci bépp aayu guddi loolu yàlla moo ñu ko mayoon te parce que kay bi kuude moo ñu ko mayoon kon jëmu jooju ku yàlla may may na la may gu rëy duutoon sëriñ sëriñ bu soxor duutoon sëriñ bo xamne da fay nekkalon bopam rek ndax nit la ko xamne defar na ay domam defar domi jambour ndax kenn ku ñi tok ci taabal ji tay kenn ku nekk ci ñun man nga doxal guddi ba guddi gi jeex te yaa ko jëlee ci mom te mom momam nga wut waaw yaa ko jëlee ci mom te momam nga tam seen wax nako ko képp tudd yalla so amé ngor war ngaa babakar Babacar mbolen tuddi kat yalla yépp ñi ngi ko royee ci moom mm. ndax ba mu tudd yàlla booba bu suñu bàyyi juddoo it booba gone la ñi mujj ñun ñun ñun suñu bàyyi nekk ak moom mm. muy tudd yàlla ñi nekk ak moom ñi tudd yàlla bañ juddu fekk ko ñu muy tudd yàlla mm-hmm. te moom musta yëg ne mi ngi tudd yàlla tudd yàlla tey di yëg ne di di seet ndax ñu ngi lay xoolam déet moom loolu mosu ko caa fekk wala xaalis baa ngi ñëw baa dikkut loolu mosu ko caa fekk bàyyeekoo nañ bawut fekk dañoo demoon ci ñu tournée ndox yooyu ñu bàyyi ko bawut war a ñibbi suum nawet la su ko defee ñi daal di départ yor ay boori six ñu dem dugg ci ot dugg ci gaal gi ñi dem ba ci digg géej gi asamaan si xiin commencé taw taw bu rëy muy taw muy taw muy taw muy taw dënnu yi ne tarararararar foo toll dégg dënnu te gaal gi gaañe fàtte nañ nga cee kaay ba indi wuñ luñ neccee ndox geej gaa ngi gaal gi na ndox ma ngi ci geej gi di dugg ci gal gi asaman saa ngi taw ci biir gal gi ta amuñ luñ neccee gal nak ah légui nak ñi def ñi anda gal gi muy ko rek asaman si dem rek ba mu capitaine bi ne man kat gisatuma yoon wi xamatuma fu ñaw ngeen bari ak ndox mu bari gor gi na ah, mu ne ko waaw mu ne waaw xam nga waaw waawaaw jooju nag nam koy waxee bi mu waxee loolu rek biiru bànne daal di ñokket rek daal di xool ne ko yoon waa ngi ne le xam naa moo xool ci bëti biiru bi biiru daal di gis yoon wa rek gaal ga tourné daal di jër ci yoon wa rek ñu daal di costé sëriñ boobu taylu toon ci yàlla kon ñu nit buñ bëggee lii am buñ bëggee am lim am buñ tayal ci yàlla maari nga may fàttalil r bi mu amee fii ci kër gi dem nañ gàmmu ji dëkk bu ñuy wax Sambane ca gannaaw kar soose bañ ko amoo wañeeku booba oto bi ñu yóbboon ñun taalibe yi mbaar la woon 400 mbaar moo xewoon kebaaba moo ko doon dawal kebaaba bu gaage mooy bàyyi Moussa Bala moo ngi doon yóbbu booba ñi gàmmo ji ba si ba ñëwee ba dëkk bu ñoo kër soose ba génn dëkk ba tuuti rek ñii daal di daal di ne góor gi suñ oto bi de essence bi bëree tut li fi des ma tut walaat mu ne ko nañ dem bàyyi jeexalut essence walaatu essence walaatu essence nag R4 dawee ci lu mat fanweeri kilomètre ñëw ba ci kër gi daal di wàcc demaat marché ñëwaat ci essence ba jeexul xam nga ne kon loolu mbiram bàyyi ñes la loolu góor gi defal nañu ko fii su ko defee comme comme guddi gi dafa am ñeneen ñuy wax. te góor gi ay mbiram du jeex ndax lañ ca xam rek nga cay wax te lañ ca xam it mënoo jeexal kon kooku lu ci waay mos rek na ko doylooxee ba déwén xanaa li ci teg rek ñun yi nga xam ñoo ci nañ lam daan def ñuy def ko mustan nangu génn aw ci yoon ñu koy ak sikar Bes jot na ñu bàyyeekoo Medina war a gàmmo ji ñu ñun ñëpp ñu topp ci gannaawam bañ dee ba génn kër gi ñi commencé tudd yàlla mu taxaw nañu taxaw leen ne nii loxo bi ñu ne set taxaw mu ne leen bu mu fi dégg sikar man taalibe laa mm-hmm. ci pay bi topp lañ sama gannaaw rek ñu commet commetté ba àgg ci place ba ñuy toog tuddal yàlla sëriñ si su paree ñu wàññeeku ñibbi at passé suñ demee passé nag nga xam ne mooy sama dëkk ba tey man maay seen sëriñ mm. lu leen neex ngeen defal ma te bàyyi tax waaye fii moom kenn fii nekk rek nañ dem noonu lañ ànd moom comé comité moom ba ca tànt ba ñi toog bañ tasee ñu ànd ak moom ñëwaat kër Mamadou Fati Diallo noonu la dundee ñun bu ñu génn addina musta nangu ku ko sikaral ci pie baay booba musta nangu itam ci jamono Mamadou Fati Diallo ñiy gàmmu ji Baamar dafa daan wax ne suñ takkee rajo ci ta ci rajo ci oto bi bu leen teg kaset bu leen teg benn sikar bañ génne Medina ba ca dinaa moo daral ba su boobaa ngeen door teg kaset noonu la ñuy def bu ñuy ñib si itam bu sikar si bàyyeekoo ca dëkk bañ gàmm joon ba jëm si Kaolack bu ñëwee ba ci dinaa moo bi sëñ Omar fay taxaw oto bi nañu fay leen sikar si Baye Babacar it noonu la daan def fay leen rajo bi ñu fay lépp ba dugg ca kër ga ñu daal di ànd ak sëriñ bi ñu saar pasi Baye Babacar itam noonu la daan def bu daan dem Medina daawul ànd ak sikar ba ca ba ca pey ba de dafa daan yoot yoot yoot yoot ba ne sarax néegam suy génn nit fay yoot yoot yoot ba génn lu muy def mu door koo def kon nag nañ roy ci moom sàkku maqaama dafay xañe maqaama waxtu woo yootoo yàlla fay jël barke maqaama ba wuccee la coono ba ngay mbiixi mbiixee moom to ci jëriñ kon nag nañ roy suñu sëriñ nañu roy suñ baay nañ roy suñ dam ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla fay amoon na lum càkkaayoo waaye defut ko amoon na lum dinkaas dinkaasee waaye defu ko foo baay Baye Babacar Thiam simis alaaji rek wala foroog bu gàtt ak sagaram mbaxana lu may muy dem tànt kon nag nañu roy ci moom bu ñu royee ci moom rek kenn du ñu xas kenn du ñu yedd te it nañ roy ci moom it mokkal danaay wax gaa ñi ne leen waxtu wooy def dara ñi la bëgg ak ñi la bañ ñëpp a ngi lay déglu soo amee benn fot ci li ngay wax rek ñi commencé ko okkante ah ñi seen wax la mokkaluñ dara xamuñ dara kon fexeel loo jàng rek nga mokkal ko lu mu tuuti tuuti mokkal ko rek tuuti ca mokk moo gën bëri te mokkut ñu ne mu ngoog tam seen mu ne woy balaa neex mokk waaye di woy ba mu yàgg na doxut kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko téewee déwén yal na yàlla nangu suñu siyaare yal yàlla jëlee fi mbas mi jëlee fi ñooñu mbas mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah